gi ci grand combat bi diggante Aboy bu yéen ak Thiatou Montagne bu écurie Fass samedi le 10 décembre 2022 combat organisé par Assane Ndiaye production Permax mu mel ni ñaari xale yi ay naataango lañu. ay naataango lañu ñoom ñaar ku ne def sept combats six victoires benn défaite. neexoon nañu. lamb boole na leen. lamb boole tey ñu xool nag kan mooy am deuxième défaite kan mooy am septième victoire wala ba xam dañuy match nul arbitre sifflé na Mbaye Babacar. Japer Max arbitre sifflé na ñu yónni yàgg nee na ku ci nekk def na six combats cinq victoire benn défaite ñoom ñaar caatu montagne nga koy sëkkatal mu ngi dox ci kaw Aboy lan la bëgg dafa bëgg xeex wala day jàpp attention caat door na Aboy fayu na. caat door na Aboy Faye attention daw nañu daje jàppante nañu Aboy a ngay jàpp caat a ngay rasu attention caat am na tànk ma ngay jéem a mboot Aboy bañ na Aboy bañ na mboot na ko lay laaxee la jël na loxo ba dem nañ ca biir gaw ba Aboy daan na caatu montagne Aboy daan na caatu montagne Aboy lay laaxee la la daan na caatu montagne ña nga koy sotu ndox. soo sembaandee nga koy sotti ndox oh la la la la la la la Thank you. ca coach su baa ngi noonu. newoon mat na une minute. mat na une minute. matul une minute. yàggul yàggul wuy ma mais loolu tege wuy ma dama wan ne. day ñëw pour duma ma. te man du ma xee. dama kaa jàpp daan nga mu ñibbi. Serigne Ndiaye ba ñëwee ma daan nga moom. da nga a biir sa adversaire. dafa mel ne naa la ko ma ne ma duma ma te nit kenn lu ko yéene lu ñaaw dama xam ne dama kaa jàpp daan nga waaw. parce que dafa respecté wul joxuma cër mosula xalaat ne ma sama man na ma kaa daan. si lépp dama xam ne dama kaa jàpp di daan. billaahi. ndaanaan ndaanaan ay daan teg sa bët foo teg sa sa bët Tidiane Faye noo may chance. waaw Lam Sarr noo may chance. ah. non non moom. waaw maa gërëm lébu yëpp. di gërëm fukki penc ak ñaar yëpp. xam nga lii lépp ñoom la. lii lépp ñoom la lébu yi ñoo ma jàppale. ba ma ñëw jàpp gan gi daan nga. xam nga li leen wax non may chance ma bëreeg moom. xanaa de lañ saan ngay laaj de. professeur bi ki jàngal xale yu bëri. waaw moom ngay laaj gis ay qualité moom combat bu neex la. di gërëm nag waa Igri Kaay Ba yëpp. Konaté mu ngi France xam naa fi mu nekk xolam sedd na mais maa ngi may victoire bi di ko may waa Sénégal ñëpp ah di may góor gi siis. waaw mbooloo mi lii lébu yi la. billaay ñeneen day campagne sax barka Serigne Babacar mais maa gërëm waaye yéen ñëpp yi. góor gi siis maa ngaa gërëm di gërëm Baye Mass di masawu sama benn copain Ablaye Ndoye doomam dafa gaañu quoi billaay loolu sax moom xaw a wàññi nii mais maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di leen jox rendez-vous ah ma Tidiane waaw